soxla ñoom luñ liggéeyee rek ñoom daal liggéey rek lañ xam. danañ liggéey rek lañ xam ñoom daal ci liggéey rek la ci la ñuy xëy ci la ñuy du liggéey rek lañ xam duñu xeex duñu xuloo duñu def leen àndandoo àndandoo nañ takkatoo nañ pour liggéey rek liggéey rek lañ xam. loolu nag lañ bëgg ngeen jàppale na ci bu baax a baax. xibaar yi lenn leen ñu deful tonton si la ñu ngi nii mar bay bëgg a dee gis nga suñ koñ bi ni mu lëndamee xaaral tuuti gee fekk la fi nga xool. kon nag li ngeen bëgg a xamal daal mooy le 24 février ay élection la ñu jëm. Malick mi ngi ci sunu biir dina leen dajale dina dajale jigéen ñi dajale leen indi leen ci soxna si su ko defee li ngeen bëgg jàppale gi ngeen bëgg liggéey bi nga xamee ni moom ngeen wax ni moom ngeen bëgg bu soobee yàlla soxna si dina leen ci jàppale. ñi njëkk wax yëpp wax ci la ñuy delluwaat tànk yi ñu fi indi mooy tànk ñëw waxtaan ak yéen ci président Macky Sall Macky Sall dafa war a dem ay élection ci le 24 février léegi mu ñëw ñu ñëw pour waxtaan ak askan wi lu ñu bëgg a waxtaan ak yéen mooy ngeen teel a jëli seeni ay carte électeur ba su vote bi bu jotee ngeen teel a dem vote ji vote bi candidat Macky sàll photo ma ngi nii li tax ñu war a voté candidat Macky Sall mooy dañoo bëgg mu am deuxième mandat deuxième mandat buñ ko bëggee pour mu mën a soqalil ñu li nga xamante ne moom la sumb fii ci dëkk bi te bu ñu nee soqali fii ci dëkk bi projet yi bari nañ fi du ñu yem ci Ila Touba waaye bourse familiale yi dégg naa ne waa Ndindy bari nañ ci doole lool euh, projet DER bi nga xamante ne moom la jàpp taxawal pour jàppale ko jigéen ñi tamit yéen gisagu leen ci seen bopp waaye bu soobee yàlla dina fi agsi balaa yàgg. ñu ngi ñaan ci deuxième financement yii di génn yéen ngeen bokk ci seen gox bi képp ku fiy jigéen dinañ leen ko dinañ leen ci taxaw ba ni ngeen ko bëggee ngeen amee ko noonu. doléance ya si fi wax yëpp bu ñu demee dinañ xool naka dañ leen ci mën a jàppalee ba lépp mën a taxaw ceeb bi fépp fu ñu dem ñu ngi leen di yóbbul ceeb pour jàppale leen enveloppe bi tamit ñoo ko ci teg. pour ngeen xool naka ngeen mën a defee ay daxin di mën a toog di waxtaanee ci président Macky Sall ba keroog le 24 incha allah ñu fi dellu si waat bu fe le 24 passé pour mun a taxaw féetewaat suñu victoire incha allah rabbi